man daal man daal xaw ma kan ma bokk mais daal danga nga wax juróom yow nga lim mais nee naa la ñaar yi wàññi naa leen ñaar yi moom kenn du leen taan. waaw loolu mu wér na moom. alors ñu dem ci laaj bi muy intervention. ndax aussi tamit lépp dafa am tuuti lu ma see wax tuuti gis nga boo xoolee nañu bañ a réew mi gis nga kan nañ ko bañ a faye gis nga affaire ay candidat yi nii ci ñoom ñu benn bokk yaakaar bokk benn bokk yaakaar ñoom kenn kon la nga am Macky Sall tax nga am ko ñoom bu leen xamee Macky Sall tax ñu xam leen bu amee teraanga Macky Sall tax ñu am ñu am ay teraanga nañu respecté seen bopp respecté au moyen Macky Sall mi nga xamante ni moo tax ñu am teraanga ëpp la seeni i ñoñ parce que ñoom dong nekkuñu fi woon te tey ñoo ñu tànn ñëpp koo dem am say doomu baay ña nga fa yaa leen ëpp teraanga yaa leen ëpp tur kan moo la ko def Macky Sall du sab xam-xam du sam njàng ñoo la jox alal jox tur. léegi kooku bu fekkee ñëw nga tey mu ñëw bay mel ni dafay jeexal pour sàmm kóllëre ak ay ndigal yoo xam ne kilifa yi jox nañ ko ko ak sàmm ngor ak jàmmi réew mi kooku tey fekkente dem na ba war a jeexal yow lan nga ko mën a yabe mu des juróom benn weer nga taxaw maanaam bëgg ko defee te defee ko woon te aussi am na si ñoo xamante ne dañoo war a leer li ñu leen joxoon ba pare bu fekkente ne tey jël nga euh, Aliou Ndiaye affaire bi mais fàtte wuñ ko affaire 45 milliards carte d'identité yi fàtte ko li nga xam mooy modification code Euh, article 57 bi moo ko indi woon à 2018 ngir imposé Khalifa Sall ak Karim Wade ngir may ab Macky Sall mbokkaal mu mën a gagné waat 2019. Ah, ah, ah boole si non électeur bi loolu moom moo ko fi def mu ni wàng léegi yow mën ngaa def li lu ñuy wàng fettiwun ko nga bëgg ni da ngay nekkaat candidat pour gën a teg si kaw askan fan nga ko teg ak ban paas nga yore bu fekkee jël nga ko si mel ne Mame Boye mais Mame Boye Diao fan la toj. tojul fenn fan la toj. balaa leer na leeral bii nii li xew aéroport bii na ko leeral ak filawoo yi. bu ma taxee wax nag du baax si moom. li xam bari na lool. jàll ci ci laaj bi ma jógee muy bureau mooy Niger fi coup d'état bi am euh, boobu ba léegi nag CEDEAO mu ngi di xool nan lay saafara yëf yi euh, weesu rek nee nañ activé nañ seen force en attente intervention boobu nag ñu ngi ciy xaarandi taxawaayu Sénégal président la République Macky Sall wax na ci boobu ba léegi nag ku ci kaw bi xam na bëri ñi d'accord président war na waaw man li ma ci wax rek mooy fi may tàmbale bala ngay ni naam na nga fi nekk ñun li ñu war a njëkk a régler mooy suñu ndaw ñiy dugg ci gaal di dee ba ci barki démb rek gis nga gaal gi nga xamante ni moo jóge woon côté euh, Thiès googu Fass Boy euh, Cap-Vert tey suba rek jokkoon na ak ñoom waa cap fi may wax yooyu si margo bi juróom-ñaari néew ñoo fa nekk ñoo xamante ni juróom-benn yi Fass Boy la ñu bokk ki ma wax mu ni kenn ki pour le moment Kayar la Kayar la dëkk. Mm. Euh, laaj naa leen seen wér-gu-yaram ñu ngi leen dugal si benn école di saluer aussi tamit taxawaayu gouvernement cap-verdien bi mi ngi leen di mi ngi leen di toppatoo daayira bi ne foofu jokkoon na ak ñoom ñu ngi leen di yóbbul ay café Touba di leen jàppale. bu ñu bëggee téléphone aussi mi ngi leen ñu ngi leen koy dimbale. di wax ni ñoo état Sénégal maa ngi koy wax mu jël ay responsabilités pour si ndaw ñi ñu mën leen a mettre en bonne condition ñu ñibbi si jàmm mën leen a delloo si wat yaakaar parce que nit nag bu demee ba ñàkk yaakaar fi lépp loo xam ne mën na ko def pour que man ni tekki da koy def nañ leen delloo si yaakaar bi ressources naturelles yi nga xamante ni moom la ñu bokk ñu man cee gis seen bopp. financement yi yi ñu mën see gis seen bopp ba pare ñu def ay formation jëme si ñoom ndaw ñi mooy yaakaar réew mi loolu moom lay laasé état bi lu jëm ci mbirum guerre bi nga xamante ni moo war a am Niger man de bu fekkoon dañ may tàggu duñu ko def parce que xam nga euh, li ay mën a yàq dafa bari te ku sumbu guerre doo xam fa muy mujj ndax tey jii képp ku naan demal guerre moom geerul ndax fi ma la koy mën a waxee rek ñun Afrique dañoo manqué woon ne dañuy dem euh, pour lijjanti. diggante Russie ak Ukraine pour ñu am jàmm mais tey bu ñu gisee ñun Afrique yi doon def loolu suñ biir ñuy xeex mais dañuy wax lu wax li gëmuñu ko dañuy wax li wax gëmuñu ko mais dañuy ñaawlu di naqarlu di condamner fermement nag li nga xam mooy coup yi am si dëkk yi Afrique yi parce que Afrique war naa passé foofu Afrique dafa war a àgg foo xam ni tey pour nga jot si réew démocratie moo la koy may du wax ju ñaaw moo la fa yóbbu. du xeex moo la fa yóbbu li la mooy mooy urne yi da ngay indi programme comme ñun suñu programme ni mel jox ko askan wi dem wax ak ñoom ci dal ci taalibe ci xam-xam ci gëm sa réew ak bëgg sa réew bu ko defee bu la askan wi falee baax na bu la falul nga delluwaat sa toog toog ba heure élection jot li nga war a wax nga di ko wax si loo xam ne day dolli réew mi jàmm ak yi kon moo tax intervention boobu man damay laaj si appel président Macky Sall na jiital waxtaan. moo gën muy jiital ay doole parce que doole faju dara te li doole man xel moo ko dàq fi xel àgg aussi doole àggu fa te muy François muy ñenn ñëpp seen intre bopp la ñuy carte mais carte intérêt Afrique parce que tey bu xeex amee rek da nga gis maanaam Europe dana maanaam profité ci occasion boobu noonu gën a tibb ressources yi nga xamante ni moo am ci dëkk yooyu noonu. te dañ indi suñuy noon suñu diggante ak ñoom te ñun dañoo am ay doom yu yeewoo Niger di yeewoo si yeneen réew yi te bu ñu déclaré guerre ñaari conséquences mën na si am pays yi nga xamante ni ànduñu si yooyu bu ne dañuy déclaré guerre ñoom du mënut dem fale engage engagé fenn mais mën nañu engage Sénégal attaqué Sénégal loolu nag bu amee day nekkaat guerre boo xamante dafa yem ci Afrique te loolu mën na sukkandiku dem ba ba ndàq sa élection yi. parce que heure bu ñu déclenché ger élection du am il faut ñu bàyyi xel loolu guerre bi ñu war a def nii bu fekkee am na mu ñu tuus senegal benn benn missile ñu dañu tuus Sénégal ci benn côté bu man doon suba mën na sukkandiku ba ba ba élection du am ñu rapporté élection yi loolu lépp tamit il faut askan ñu mën ko bàyyi xel kon daal nañu woote jàmm ak dal ci dëkk Afrique yi jëkk ko si suñu bopp parce que jàmm moo gën élection jàmm aussi tamit moo gën alal. waaw tàggatoo bi mooy di sant yàlla di bàyyiloo xel askan wi yëpp ni ñun dañoo nekk ay coalition nekkal fi askan wi ñu def benn Sénégal Soppi ak doomu daara am programme cinq programme boobu boo ko doon tëgg tey. 155 cinq boo ko doon tëgg danga naan la yokkute askan wi mooy yokkute réew mi ci gàttal yokkute askan wi mooy yokkute réew mi un bi moom nga jël def ko ni. première mandat cinq bi nga def ko cinq programme cinq axes te cinq mandats ndax ñu jël nit muy lom tudd ko programme parce que bara ngay defar réew dangay defar nit ndax bu jikko yàqu doomu réew mu baax nit kooku ñun lañ bëgg a defar ndax si nit kay mën a sukkandikoo pour defar réew nit kooku nag mooy lom yor juróomi cër juróomi cër cër bu nekk ñu tudd ko maanaam benn axe ak benn programme mu wàcc suuf. bopp bi lañ jël mbooleem xam-xam li si ajoog yëpp ak réforme yi ñu si wax def def ko si jël beneen loxo bi def ci jëm ci mbirum économique jëm si beneen bi jëm si mbirum euh, sécurité parce que mënoo am maanaam réew mu dak te amoo maanaam sécurité ak équité ak sociale ci suuf ñu def social parce que mënoo jël réew mi te indiwoo amoo santé wér-gu-yaram baax dem ba tef si ay. waxtaan yu bari yoo xamante ni def nañ si ay point parce que dañu léegi nit ki dañuy seetlu ne bu feebaree jógee fenn pour war a dem faju la muy dagg si paas moo ëpp la muy dagg ticket ñun dañoo bëgg maanaam organisme bu nekk ñu def fa maanaam benn sant sant boo xamante ne dañuy relever plateau médical bi nga xam foofu la ñu yem di faju ñu ni maam ñi nga xam ñooy suñu mbokk handicap yi si biir programme bi jox am solo ba projet yëpp yu ñu wote ñu mën koo maanaam maam rek laaj ba xamante ñoom dañ gis seen bopp ci réew mi loolu incha allah mooy programme bi xam naa fan yi di ñëw daañu ñu a toj ba askan wi xam ni ñun ay doomu daar lan waaye ay borom yi xam-xam lañ loo xamante ni war naa am lu ñu jox suñu réew pour que ñu mën a wote 2024 ndax xam-xam du làng ndax français boo demoon Gambie doo ko bu buñ ko boo ko waxee kenn du ko dégg ñun mus ñoo sàcc àllu réew mus ñoo def lu bon ñi ngi bëgg askan wi pour ànd ak ñoom pour réew mi 2024 te li ñu doon xeex 1960 ba léegi dafa jot nag ñi nga xam ñoo jàng ko tubaab yi nga xam lu yàq ñoo ko yàq ñu jël ko tey jox ko ñi nga xamante ñooñu ay ay doomu daara doomu daara nag mooy borom jikko yu baax yi ñi nga xam duñu sàcc du ñu mooy yàlla du ñu def lu bon ba pare duñu lekk àllu réew mi ñoo ñu mooy doomu daara ñooñu ne jàng ko tubaab sa lu ñu bokk mais nag dama bëgg rek ñun jikko yu ne si ñun moom lañ moom lay tudd doomu daara mooy jikko yu baax yi nan jël réew mi jox ko ñu ñu baax ñi dama jiitu si nag salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. nekkal fi askan wi bokk également ci la coalition wàllu Sénégal ñu koy jaajëfal. di leen di jox daje ci beneen entretien ci Sénégal 7 jaa